الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نومي دوكي تكالي تجي جي جي دال كيلتي كيلتي نك تاتي كيلتي نك man na manees na tey jiital ñoom ñëpp mën nañ na tey jiital sëriñ Fallou Fall mii bu dee ci wàllu diine ji kilifa diine la bokk ci njiiti kilifa diine ci gox bi la bokk bu dee ci wàllu njàng mi ak njàngale mi ci kilifa yooyu la ci gox bi la bokk bu dee ci wàllu administration itam mooy kilifa gox bii di meeru fii lu nekk kon moom la ñuy jiital kon ci kilifa yëpp teg ci nag ilimaan yeeg jàngalekat yi ak waa daayira yi ak waa dëkk bépp di ndokkeel ñëpp ci koor gi di ñaan yàlla mu nangul nu lépp lu ñu ci am ci rëcc rëcc fekk la waat na ko ay ati at jub la ak saal waxtaan wi kon dañuy tënk rek lu jëm ci fitna lu lu koy waral yan jeexit lay am ak taxawaay ban la ci ab jullit war fitna nag ni ko saas waxee ñoo ngi ci alquran ci ay bërëb ñoo ngi ci sunna ci ay bërëb baatu fitna wolof ci arab la ko jële mel na ne mel na ne ci arab la ko jële mel na ne itam maanaa maanaa yi ko arab jox moom wolof it da jox te ma arab am na ci maanaa yu wolof it am na ci maanaa yu wuute min ci min ci jublu nag mooy maanaam li nga xam ne manees na ko firee aw ay aw ay fitna ji ñu wax mooy fitna ji firi aw ay kon day mel dañ naan rek aw ay yan ñoo koy sabab itam ñoo ko mën a loolu yan jeexit lay am ak itam taxawaay ban la ca jullit war a am buñ xamee ne kon fitna ji ñu jubloo wax mooy rek aw ay dana xam ne itam lu jar a waxtaane la saa soxna ko léegi bu nu seetloo bërki bërki démb ci koy ji irimaan yu bari ci seen xutba seen wax jëme nañ ko ci jàmm te jàmm mooy safaanu aw ay kon mooy wane ne lu jar a waxtaane la lu yitte lu yitte nekk ci ñu waxtaane ko yit la rawatina nag jamono yi toll ci réew mi li ko jiitu ak li ci ragal aw ay am na ci jot a am sax li ñuy séentu itam ñàkkul ne am nañu ko ci ragal te tax na kon lu mat a waxtaane la loolu lépp luñ ci mën a moytu ñu moytu ko loolu nag lu li koy waral dañ ciy tudd yenn lii waral fitna yi waral awaay bokk na ci li ñuy tuddee parparloo parparloo lu mën a jur fitna la lu mën a jur awaay la ndax parparloo mooy lan mooy koo xam ne dafa boole boppam ci am mbooloo di askanle boppam ci am mbooloo yitteem yëpp itam mu yéeme ko ca mbooloo mooma am amam man manam xam-xamam lépp mu yéeme ko ca mbooloo mooma rek ba noppi it lépp lu jóge ca mbooloo mu ne dëgg la mu ne dëgg saa bu mbooloo ma wuute meneen mbooloo wala keneen bu man di wutee mbooloo mooy ka wutee mbooloo mi nekkul ci dëgg kon koo xam ne lépp lu jóge ci mbooloo mi rek mooy dëgg la nangu ko lépp lu wuuteeg lu jóge ci mbooloo mi mu ne du dëgg bañ ko loolu mooy parparloo loolu nag lu mën a jur fitna la ndax mooy googu muy mooy ci lépp lu ci mbooloom ñu bañ lépp lu ci meneen mbooloo wala ci feneen loolu bu ko defee euh, safaan moom def ko fitna day mën a dox seen diggante ndax ku ne day bëgg saxal li jóge ci am mbooloom dàq li jóge ci meneen mbooloo bu ko ne bëggee nag dañ safaanoo rek fitna day daal di mën a am ni aw ay day daal di mën a am kon par parloo lu mën a jur fitna la par parloo nag baaxut waaye taxul li ñuy wax féete bon féete moom aayut féete aayut waaye ci biir féete na nga àgg ci ci farfarloo loolu moo aay loolu moo baaxut loolu yonente bi dafa lool di wax ne ku ci faatu nga xam ne faatu na ci ceddo mooy ku nekk ci farfarloo ba faatu nga xam ne faatu na ci ceddo farfarloo mooy nii na ko waxee firiwul rek boole sa bopp ci mbooloo loolu rek ku ci yem ñàkkul dara waaye bu àggee nag ci ne lépp lu yëg ci mbooloo moom lu jub la lépp lu jógeewul ci moom jubut lépp lu ñu wax noona la lépp lu safaanam seen wax jubut man maanaam ak am amam ak xam-xamam yëpp itam mu yabal ko ci biir mbooloo moom rek loolu mooy parparloo loolu la ñuy bañ ndax nit ki man naa féete waaye du tee moo xam ne ñu bokkul féete sàngam bokk naa ñoom leneen bokk naa ñoom leneen ba tax na kon saa soxna ko war naa ci war nay jàppalante ak ñoom ñu mbokkal féete ci wàllu sàngam dal jàppalante ak moom ca loola waaye ñu mbokkal féete mii tam am na leneen luñ bokk loo xam ne war nañ caa jàppalante ak ñoom bu dee nag moom lépp ci ci rek la ko ñëwale loolu mooy par par lool loolu moom la jur lii wax moom la jur fitna moom la jur waaye tooñ itam tooñ tooñ it mën juru ay ndax ci tooñ jëmmi tooñ ci boppam rek aw ay la tooñ ci boppam rek aw ay la waaye kiñ tooñ moom it bu baalewut jéggalewut bu toppantee ay wa mën naa yokk ay wa mën naa yokk kon tool yi ci luy jur firnde la ci luy yokk firnde la itam ak it loo xam ne mook tooñ ak tooñ la moom itam waaye daa am ñu ko tegoo xëy na mooy li ñuy wax jeng jeng ci àtt tooñ moom ku ne mën na koo def nun ñii kenn ku ne mën na cee tooñ waaye nag bëgguñ kenn tooñ ku ne na koo def bu dee jeng jeng moom Euh, kilifa moo koy def kilifa rawatina kuy àtte jàng mooy ñàkk a maandu ñàkk a maandu itam mën naa jur fitna mën naa jur aw ay ndax kiñ teg lu jaaduwut moo kiñ tooñ rek ñu dañ ko tooñ ginnaaw kiñ tooñ na bu jéggaliwut baariwut bu toppantee fitna mën naa juddu wala mu yokk kii ñu jàng jëme ko itam moom itam bu mu ñu jëllale moom it fitna mën naa juddu lu aw ay mën naa judd kon jàng ci àtte ñàkk maanu ci àtte moom it day jur fitna mën naa yokk fitna itam ki nga xam ne dañ ko jëfe ak ñàkk maanu day jàppale dañ koy jaay doole bu jàppee nañ ko jaay doole nag te moom mënta muñ mënta jëllale moom it day mën naa jëfandikoo doole rek ngir joxe doole ñu koy jàng jënd ko loolu rek ma fitna mooy aw ay lii di ëppal itam ëppal ak bañ a dellu ginnaaw loolu it bokk na ci li mën a jur aw ay li mën a jur fitna ëppal ci ngir ngir mu mën di doon rek moo xam ci wàllu pas-pas la wàllu ngëm wala ci wàllu sax politique wala ci wàllu xalaat wàllu bu mën di doon rek ëppal ca bañ caa nangoo dellu ginnaaw lu tuub tuub di naan bañ bañ a bañ a bàyyi dara bañ a wàcc dara bañ a yàbbi dara ni koy wax loolu tam mën naa fitna mën naa aw ay ndax ku def lii rek kam jàkkaarloo bu defee noonu moom it aw rek moo koy juddoo ako ak ak fitna mooy ëppal ci li ñuy jàpp ngir ci jàpp dara ëppal ci ko koo xam ne maanaam na faa bañ a àgg loolu ci ne du delloo ginnaaw moom lu tuut tuut loolu boo ko nit defee wala ab kuréel des ko kuréel ba mu jàkkaarloo def ko rek moo cee juddoo euh, aw ay moo cee juddoo lii itam di fayu tooñ ni ñu ko waxee woon tooñ mën naa jur fitna mën naa yokk fitna waaye fayu itam mën naa jur fitna mën naa fayonte ku dul jéggale daal wala ñu dul jéggale fayonte soyante it mën naa yokk fitna mën naa yokk fitna ñaar yooyu muy tooñ ak fayu liñ mën a jur fitna mën a jur aw ay moo taxal sëñ bu mag bi sëriñ Tuba radiyallahu anhu daan ko moytuloo li mu daan moytuloo tooñ noonu la daan moytuloo fayu itam daan wax ne kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du noppaloo kuy tooñ du mucc waaye kuy fayu du noppaloo kon li bëggoon moom mooy nit ñi bañ a tooñ te ku ko tooñ itam mu bañ a fayu mooy mu jéggal loolu la loolu la bëggoon ndax yaa ngi lu ci nekk rek lu mën a jur firnde la lu mën a yokk firnde la tooñ ak fayantoo ne ko fay leneen li ñu mujjee tudd mooy li ñuy wax xat xat xol mooy yóbbu nit ñi ñuy xat xol itam mooy yóbbu nit ñi ñuy fayantoo di bañ a jëllale di bañ a rek loolu tam day jur day mën a jur fitna xat xol nag dafa mel ne yaatu na ci sunu suñu suñu suñu biir buñ ko seetloo nit ñi li ñuy muñalante bariwut li ñuy bariwut am na ñu ndaw yoo xam ne duñ ci bàyyi xel waaye ñàkk mu ñàkk mu yëlante ngeen cee ñàkk mu yëlante mooy wane ne ñàkk mu yëlante day dafa nekk dafa nekk ci noonu daa taxoo ak noonu bu dee wax nag mën na wax ju rafet Sénégal moom kenn dox ko wax ju rafet di jub waaye jikko ji nga xam ne ni ngay doxe bis bu loola moom euh, xat xool moom bari na ci ñàkk mu ñu ñàkk mu ñu leen buñ ko seetloo béréb boo xam ne ay nit dañ faa daje bokk fa soxla bokk fa soxla ku rek day bëgg day bëgg a njëkk a lijjanti li dana ñoom wóor ko ne ñii ko jiitu waaye dana jéem a def fexe ba diine bi njëkk na di jënd te wax dëgg naa mën muñ nag ñi ko jiitu jiitu ko ba seeti moom mu doon mu doon faj soxla ba ci yoon yi nii rek muy circulation bi ni ñuy doxee day war a mu ñu lante borom oto yi ñi xëccoo ñi ñàkk mayente loolu lépp dëgg-dëgg day wane suñu jikko mu ñàkk mu ñu lante day dafa doon ji yaatu suñu te ñàkk mu ñëlante nag taxat xol moo koy waral ñàkk mu ñëlante boobu nag danay jur fitna danay jur aw ay ndax mooy jur fayu fayu te bu fayu amee rek aw ay man caa fitna man caa kon yooyu manees na leen a tudd ci yi nga xam ne danañ sabab fitna danañ sabab aw ay jeexet yi man nañ koo tënk lépp ci lenn rek lenn muy fitna bu amee rek mooy liñ naan sécurité amut sécurité sécurité nag mooy nekkin nekkin wuy tax nit ñi seen xel dal du am lu ñuy ragal du am lu ragal ci seeni jëmm du am lu ragal ci seeni alal seen xel dana ci seeni jëmm seen dagg naa ci seen moomeel nekkin woowu la ñuy tuddee sécurité neexut a wax rek neexut a wutal benn baat rek ci wolof waaye nag maanaam mi mooy loolu bu fitna amee rek mooy loola da dafa dàqu ñu sécurité daanaka mooy rek kon xel mu dal nit ñi seen xel dal ci seen seen seen i jëmm seen xel dal itam ci seen i moomeel ci seeni i alal jeexe yi ñuy wax nag li tax moo gën a doy waar mooy lu ci am day mën a dal ñëpp day mën a dal ñëpp ñi sookale fitna ji ak ñi ko sookalewul du du du du xàjjale jeexe ji lu ci am rek du jëm rek ci ñi sookale fitna ji bàyyi ñi ci des waaye ñëpp lay mën a mën a dal loolu yàlla bi muy tere bi muy moytuloo fitna dajaa teg ne fitna kat du yam rek ci ñu tooñ ma ñu ko sookale wattaqu la tusibanna alladina zalamu minkum xaasa ngeen mooy ko fitna fitna kat du yam ci ñu rek mooy ñi nga xam ne ñoo ko sooka ñoo rek ñoo ko rek loolu moo tax ak lu koy jeexal bu amee jeexit yooyu kon lépp mën nañ ko tënk rek ci ñàkk sécurité sécurité nag muy dal xel googu daanaka mooy laltaayu lu mën di doon lépp luy amal njariñ nit rek sécurité mooy laltaayam mooy bu sécurité amul rek loolu du mën a am bu sécurité amul daanaka leneen du luy jëriñ nit ki ci àddinaam lu ko tal lu tal lu koy jëriñ ci àllaaxiraam itam bu fekkee sécurité amul te fitna mooy tey sécurité am loolu moo tax sécurité boobu yàlla boole ko ci xéewal yi ñu fàttali nit léeg-léeg boole ci xéewal yi ñu koy fàttali di ko wan ne war naa tax mu gore war na tax mu gore ba delloo ko njukkal yàlla ci alxuraan day fàttali ñi ay xéewal yu bari yoo xam ne naan leen lii ma leen defal kat war naa tax kon ngeen delloo ma njukkal delloo njukkal yéen mooy gëm ko rek te di def ay ndigalam di bàyyi ay tereem nga xam ne ku ko defut yàlla daan dafa gore naan nit dafa gore ci gore mooy ki nga xam ne yàlla ko defal xéewal yi yépp te taxul nag mu nangul yàlla nangu koo topp teew yooyu boole na ci sécurité bi nga xam ne da ko defal da ko defal nit ñi gis nañ ci suuratu Quraysh li ilaafi Quraysh ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يا يعني ليوم وقريش Quraysh mooy biir wala xeet yu yonente bi bokkoon askan yu yonente bi bokkoon sallallahu alayhi wa sallam te ñoom ñu nekkoon màkka ba noppi doonoon ñi doon taxawu kaaba bi loola juróloolu leen war ma arab yépp jox ngir kaaba bi doon taxaw yàlla di wane nag ne waa Quraysh war nañoo jaamu borom kaaba gi lu tax mu ne moom ñi leen moom ñi leen may luñ lekk may leen itam sécurité ba ragaluñ gis ko ñaar yooyu jox na leen luñ lekk jox na leen sécurité ba ragaluñ kon war nañ koo lu néew néew nag war nañ koo jaamu kon mu delloo kon lim na xeew lim leen defal wala xew war naa tax ñu jaamu ko nangul ko ñu baax ñi béréb buñ masana am dañ fay ñaan sécurité Seydina Ibrahima alxuraan nekk na ci béréb yu wuute bi muy bàyyi ak njabootam Màkka mu ñaan yàlla mu def ko béréb boo xam ne béréb boo am sécurité lay doon béréb boo xam ne bu xel di dale lay doon dafa seen xel day dal duñu ragal dara ci seeni jëmm duñu ragal dara itam ci seeni seeni moomeel seeni alal sëñ bu mag bi ñuy sajji Tuuba lam fay ñaan loola bokk na ca sécurité wajaal xarimana xariman amina wakun bi tam zika kafiran amina mooy maa ngi ñaan sunu béréb bii nga def ko béréb bu am sécurité mooy bu am luy daanaka xeeri nit ñi ni la xeeri nit ñi dal daanaka moo jàmm la moo jàmm la kon day lu am solo ci diine kon muy sécurité te nag ay da ko fi jële ci jaar itam mooy ay da fi jële sécurité te sécurité doon lu amee lu amee noonu solo ci diine waaye sécurité itam sabab lu ko sabab lu ko mooy def luy tax mu am def def luy tax mu am yonent bi dafa wax ne bokk na ci li tax ak ngëm di mat li tax ngëm mat mooy nit ki di def luy tax sécurité am luy tax sécurité am mooy bañ a lor kenn bañ a lor kenn muslim man salima al muslimoon min lisaanihi wa yadihi jullit mooy koo xam ne nit ñi dañoo mucc ci aw làmmiñam mucc ci loxoom mooy dañoo mucc ci aw lor bu jógee ci moom ci wax mucc itam ci lor bu jógee ci moom ci jëf waxaat ne koo xam ne ay dëkkandoom fu ñu toll ñu ngi séentu aw ayam kooka ak nga moom matu da ko gi ñetti yoon ne giñ naa ne gëmut wax ko ñetti yoon ñu ko kan la mu ne ki nga xam ne ay dëkkandoom seen xel du dara ciw aayam man laa yamanu jaaruhu dawaa isaac kon sabablu sécurité bokk na ci li tax ak ngëm ak ngëm a mat waaye sabablu sécurité itam ci mandarga jullit ñi la bokk mandarga jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne dañ ko laajoon dañ ko laajoon ne ko jën jën lislaam a gën mu am yum tudd wala mu tudd leen tegtal yi mu ne ko ngay joxe aw ñam tey nuyu koo xam ak koo xamut nuyu nag li muy firi mooy ñaanal jàmm man ngay ñaanal ndax ñëw lislaam loolu mooy ngay nuyu di ñaanal jàmm koo xam ak koo xamul nit ki bu dee ku ndajee ku ne nuyu ko ñaanal ko jàmm koo xam ngay sabablu ci sécurité am te loolu mooy màndargam jullit it ndax nuyoo lislaam nuyoo jullit ñaanal jàmm la kii ñaanal nit jàmm nag jaaduwul moom mu di ko jéemee lu dul jàmm ci ñaan jàmm xanaa du ko jéemee dul jàmm loolu ko dee wane ci màndargay lislaam la bokk am na feneen fu mu waxee ne dafa giiñ moom it ne giiñ du ngeen gëm li fee du ngeen dugg àjjana li fee gëmu leen du ngeen gëm li fee bëggantewu leen xanaa duma leen tegtal lool bu ngeen ko defee bëggante na ngeen di nuyoo du ñaanalante jàmm seen diggante kon di sabablu sécurité dafa bokk ci euh, mandargay lislaam bokk ci mandargay jullit kon fitna te mooy aw ay bu amee la cay juddoo mën nañ ko tënk ci lenn rek mooy sécurité ñàkk sécurité nag tolluwaay bii nu wax moom la am ci lislaam tolluwaay bi mooy mooy tax dara mooy tax lenn mën a sotti wala danaan foog naa bu yitte ñaar bu yitte dee ñaar jaamu da caa bokk wala ak wér da bokk lu ci mën mooy sécurité rek ndax wéere ji itam ñàkk jaamu la kon nit ki lu tax lenn bu jaamu ñàkkee bu nekkee ci ay du tal leneen bu talee leneen rek daa fekk mu nekk ci jàmm kon jàmm jooju nga xam ne fii dana koy xañe jàmm jooju rek mooy tax nit mën a sottal lu mu bëgg a sottal lu ne moo xam lu koy jëriñ ci àddina lay doon moo xam lu koy jëriñ ci àllaaxira lay doon liñ ko waxee itam sabab lu luy tax sécurité am mooy tax nit ki ak gëmum mat ku ne gëm na waaye day def safaan safaanut luy may sécurité yooyu dem nee ak ngëmum matu ak ngëmum matu la yooyu kon manees na koo tënk ci jeexit jeexit waaye buñ gisee jeexit yooyu mu am danañ ci xamee ne kon lu lu lu doy la muy fitna aw ay lu doy la lu jara moytu la li koy gën a woon mooy alxuraan danoo xamal ne fitna moo yées rey rey nit rey ko benn yoon mu faatu fitnaal ko muy dund ngeen ko fitnaal moo yées moo yées kon day mel ne rey gën a woyof ne xam na ni ñu toll ci islam ci alxuraan tëkkoo alxuraan li mu ne mooy pay ci rey ci lu yoon te tey ko rey ci lu yoon ba mu yaayoo ci mbugal da ca alxuraan wax alxuraan moo waxaat nag ne fitna nag moo moo yées rey moo gën a rey ak fitnatu ashaddu min al qatl ci benn bërëb beneen bërëb al fitnatu akbaru min al qatl wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl te qatl li ñu ci li ñu ci wax mooy ci rey nit te tey ko ci lu dul yoon ay gamu yayoo gamu yayoo nga ko ko yàlla dee fay loolu koy fay mooy mu dëkk sawara mu dëkk fa yàlla mere ko te mu koy dëkk itam mbugal mu metti mu koy doyee dal la koy dëkkee loolu nag lu ko gën a rëy gën koo tar kon kenn xamul moom dañ cay dañ cay fay nit ki yàlla na ca la musal kon loolu day wane kon ñàngaay bu ñàng mbon bu mbon waaye bokk na ci li wane bon kumpa it yàlla dafa wane ne fitna mbirum seytaane la mooy ku koy sooke day mel ne ku topp tànki seytaane day mel ne ku topp tànki seytaane yaa ayyuha alladina amanu duxulu fi silmi kaafa silm mooy safaanu fitna fitna mooy ay silm mooy jàmm mu ko yéen ñëpp dugg leen ci jàmm mooy da leen def luy maye jàmm da leen def luy saxal jàmm wala tattabi'u xutuwaati seytaan bu leen topp tànki seytaan kon mooy bu ngeen deful lee te mooy di def luy maye jàmm di saxal jàmm ku ko deful mooy day def luy sabab fitna lay sabab fitna nag lay wane kon tànki seytaane la bu leen ko topp innahu lakum aduwwun mubiin seen noom la kon lu leen di yàqal rek la leen di jëm nekk kon ci li may jàmm tey moytu di topp seetaan topp tànki euh, tànki ci lu jur fitna wala luy saxal fitna mu des nag taxawaayu jullit ci fitna mën na noo wax bu fitna amut moom moo war a def ba fitna du am loolu mu war a am buy mën a fekk fitna waaw benn taxawaay rek la bu fitna amut bu taxawee taxawaay boobu fitna mën naa bañ waaye bu fitna amoon ba noppi bu taxawee taxawaay boobu taxawaay ba mën naa saafara fitna si wala fitna kon daal taxawaay bi moo xam fitna amagut la. mu mën a fànq fitna ja wala bu fitna amee ba noppi la mu mën a saafara fitna ja li ci njëkk ci li ñuy tudd noonu mooy yaatu dënn yaatu dënn ba mën a nangu wóote ak yow ba mën a nangu wóote ak yow boo xam ne xat dënn dana war a fitna par par loo par par dëgg-dëgg mooy ñàkk nangu wuute dana war a fitna kon bokk na ci taxawaay bi jullit war a am ngir fitna bañ a am wala bu am waaye itam mu mën a saafaraw mooy mu yaatu dënn nangu wuute wuute ci wàll bu mën di doon nangoo ñàkkandoo ko mu wuuteel ci jàmm ci jàmm nangul ko lam nekk moom xam ne ni sañ a ni ci lii mu nekk la keneen ki sañ a nekk ca lee mu nekk yàlla moo bind nit ñi def ci ñoom wuute googu ngir am lu mu jublu ñu wóote ci wàllu yu bari loolu na meelu yàlla la yàlla dafa am lu mu jublu mu def ko noona kon nit ki dafa war a nangu dafa war a nangu wuute googu nangu ne coobare yàlla la kenn ku ne lam nekk mu nangul ko ne am na sañ-sañu nekk ca ni mu nekk moom li maa ngi sañ-sañ ci nekk ci li ma kon li ñu njëkk a tudd foofu mooy ci taxawaay bi jullit euh, ba fitna bu amagul mu bañ bu amee itam mu mën saafaroo mooy mu yaatu dënn te nangu ak wuute nangu ak wuute. bokk na ci mooy tënku rek tënku ci jàmm rek lépp lu ngi lijjanti mu ne man ci jàmm laay lijjantee lu ngay lijjanti lu ne ku ma wuutee itam ñu am ak réeroo itam li ma koy lijjantee ci jàmm rek lay doon nit ki tënk boppam ci loolu yàlla waxoon ne dugg leen ci jàmm ji yéen ñëpp dugg leen ci jàmm ji yéen ñëpp te bu leen topp tànk seytaane mooy jullit bi dinaan man samay mbir ci jàmm laa koy lijjantee mbir loolu la war def bu ne ay mbiram ci jàmm la koy lijjantee kon moom mën naam am du du du sookale fitna du sookale fitna bu fitna amoon ba noppi it bu ñuy dox ngir génn ca it moom ci jàmm rek lay lijjantee lu ñu def lu ne kon ba tey jàmmam ngir saafara fitna ji nga xam ne am na ñetteel bi ci ñuy tudd mooy nag di nangoo bàyyi di ne ko xam ne bu bu màttee day dagg rek déedéet di daa war nangu léeg-léeg màtt ba noppi nag ne la at dagg jàpp dara waaye bu naree jur ab safaan nga nang koo bàyyi loolu bokk na ci lii maanaam fekk fitna mooy bu amagut mën naa tey fitna am bu fitna amoon ba noppi tam mën naa tax fitna sa saafaraw mooy di nangoo dellu ginnaaw di nangoo bàyyi loo jàppoon jàpp nga ci dëgg nga ne waaye boo ko toppee la cay juddoo mën naa doon aw ay nga kon naa ko bàyyi mais naa bàyyi ndax jàmm moo gën moo gën ay gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy wax ne jullit ak moroom ja waruñoo dëddoonte waruñoo wanante ginnaaw lu ëpp ñetti fan dëgg-dëgg waruñ ko def ak diggante lu gàtt gàtt waaye dana bu faagee nag ëpp na baagee ñetti fan nag ëpp na foofu nag moom waru ko mu ne ki ci gën nag bu loolu amee da doonte kii waa ginnaaw kii kee waa ginnaaw kee ñu warante ginnaaw ka gën mooy ka njëkk a sabablu jàmm ka njëkk a sabablu jàmm ci nuyoo ñu la wut nuyoo ñu warante woon ginnaaw duñ nuyoo ku ci njëkku nii moroom ja moo moo ci gën ci ñoom ñaar ndax moo njëkk def luy sababloo jàmm leneen yi nga xam ne it mën naa fànq mën naa fànq fitna mën na ko saafara it bu amee mooy di jéggile waxoon nañu toppante ak fayu mën naa si fitna kon jéggile bañ a toppante mën naa fànq fitna bu amagut mën na ko saafara sax bu amee noonu ndax kooku fitna mën naa am te fekk am na koog moom bu baale woon rek lépp ñeex bu baalee woon rek lépp jeex kon kooku dafa dafa war a baale ndax fii dañu jeex baale boobu sëñ bu bi dafay xiirtal ak njabootam am na fu mu ne képp ku gis mbind nii nga xam ne ki ko bind baal na képp ku ko tooñ nga xam ne ki ko bind du ñaan yàlla kenn ku ko tooñ ñaan yàlla nit mooy ñaan yàlla mu def ko lu bon mu alal ko mu mbugal ko mu nangam ko mu nangam ko loolu mooy ñaan yàlla mu ne na ku gis mbind mi nga xam ne ki ko bind moom du ñaan yàlla kenn ku ko tooñ mooy lu ko man di tooñ it lu tax mu ñaan yàlla mu def ko ab safaan mu teg ca it ne ci bind ku gis mbind mi nga xam ne ko bind day jéggulul nga jéggulul jullit bu ne bu aju ci moom yépp jullit bu aju ci moom da koy jéggulul yàlla mooy dañaan yàlla yàlla jéggal waaye nag ku gis mbind mi it nga xam ne ki ko bind lim bëggal ñi aju ci moom la bëggal ñi aju ci moom lim la bëggal ñi aju wut ci moom gis nga ko ñu ngi fi wane njëggal gi ñu jéggal na euh, képp ku ko tooñ te itam du ñaan yàlla kenn ku ko tooñ waaye dañ ca teg da koy gën a dëgëral rek ci na lim bëggal ñu aju ci moom la bëggal ñu aju wut ci moom itam te doon ay jullit moo tax béy boobu ñëpp xam afawtu anil a'daai furran li wajhi man nafaahum min ghayri sarmadan lastu adfa'u noonu ñii di tubaab yi nga xam ne lu nekk jéem nañ ko ngir lor ko gàllankoor ak wooteel mun a jéggaleel ñoom ñëpp ngir yàlla du du toppante du toppante du fayante feneen mu wax mu waxat yàlla ne ko na seere ne jéggal naa tubaab yi ak ñu dul ñoom تينيب وشهد لي بأني عفوت عن النصارى الذين أخرجوني تبابي مجنة تبابي مجنة أنا سأرى يالنا جيغلنا لهم وعن غيرهم من الناس جيغلنا لهم يجلنا لهم تينيب بكونا تيت كلي مانا فانك دي مانا فانك تخوى بجيلة مطورة تخوى تبقى تخوى مانا فانك فينا بوامة هوت مانا تخوى سابر بوامة mooy nag di defare defare defare na bu amee rek daa fekk wuute dafa am diggante ay kuréel wala ay nit defare nag mooy fexe ba jubale leen ba jubale leen ba ne lam jàppoon mu bàyyi ko ba fitna ji bañ bu fekkee amagut bu fekkee moom itam buñ ko bàyyee fitna ji mën a jeex mooy defare kii defaree itam nag na ca na ko def ci maandu ci maandu alquran Yàlla na ci wax ne bu ñaari kuréeli jullit bu ñuy jotee ba àgg ci di xeex na ngeen leen defare na ngeen defare seen diggante mooy na ngeen ci dox ba réeroo gi am seen diggante dañ bu ngeen ci doxee gis ki nekkul ci dëkk ngeen wax waxit nangu wuta dellu ginnaaw na ngeen dal ci kawam kon moom na dal ci kawam bu nekkul ci dëkk bu nanguuta dellu ginnaaw na ngeen dal ci kawam kon mooy kuy defarees da ci da ci tënku ci dëgg ci newul ci dëgg bu nanguuta dellu ginnaaw ñu xamal ko moo nekkul ci dëgg bu laajee ñu dal ci koom ñu xeex ak moom la woon nañ xeex ak moom wala ñoo xeex yore ngànnaay di moo nekkul ci dëgg ba moom moom ba ci yoon ba mu ci yoon bu delsee nag fi ngeen jubale leen ndax ay mbokk ngeen lu mën di xew ay mbokk meen lu mën di xew ay mbokk nag dañoo war a rafetal seen diggante kon mooy di di jubale di euh, rafetal di yéwénal ñaan yéwénal mooy ñu am ak jib dox seen diggante am ñu ca dox ba man leen jubale ba jàmm mën a am ba fitna aw ay mën a dañ fitna bu amee kan mooy responsable bi responsable kan moo ko yor bu amee kan moo responsable kan moo am responsabilité war koo war koo fànq ak bu amee ba nag mu war ko fay jële responsabilité fit na daal ci wàll yëpp ci kan lay tegee buñ ko seetloo dañ naan ci ñëpp la tege dañu ko société bi yëpp la tege société bi yëpp ñoo am waru garu moytu fitna di def luy tey fitna am société bépp la seen warugar yàlla mi wax ñëpp la waxal wattaqu fitna ñëpp la wax amul ñu beer waxal ñoom waaye ñëpp la wax yéen ñëpp na ngeen moytu fitna kon ñëpp ñoo am warugaru taxaw taxawaay buy tax mu mu tey di tax mu jeex kon ñëpp la waaye fu ñu waxee ñëpp nag du tey am na ñu ca gën a am cër du tey am na ñu ca gën a am cër ñi ci gën a am cër mu ñooy njiit njiit yi njiit yi ñu jiite nit ñi ñoo ci gën a am cër ñi leen jiite ci wàllu diine ak ñi leen jiite ci wàllu politique am nañ ci wàll loolu maanaam seen wàll la ci jiitu laa bëgg a wax seen wàll la moo ci jiit ndax njiit waru mooy ñam jiite mu leen di dugal lu leen ci lu leen di jariñ àddina ak àllaaxira di leen moytuloo di leen jéemu fegal lu leen di lor ci àddina ak ci àllaaxira te fitna luy loreen kon ki doon jiit war naa jéema dox diggante ñi mu ak fitna mooy dox doxee muy tax kon fitna bañ a am bu yàlla dogaloon mu am itam nag moo jiitu ci ñi war a dox ba mu deñ ba mu teggi mooy njiit yi kon ñu jiite ci wàllu diine ak ñu jiite ci wàllu politique bu dee ci wàllu politique ñi ci jiite moom it moo xam ñoo xam ne ña nga xam ne ñoo yor àtte bi ak ñi ko yorut ñi yor àtte bi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk réew mi ak ñi ko yorut wala nga xam ne dénkuñu leen ko tey xëy na ñu dénk ko ci am warugar boo xam ne moo ëpp yu ñi ci des am ñi ci xam ne ñoom bokkoon ci ngir yooyu kon ci wàllu diine ji ak wàllu politique bi ci jiite ñëpp am nañ warugar ci luy fànk fitna bu amagut ak it nag jëlee fi fitna bu fekkee am na am na ba waaye li ñuy tuddee média yi itam ndax média yi ñooy yor jumtukaay yi tasaare ay xam-xam ak xibaar jumtukaay yooyu di tasaare am nañ warugar bu mag ñoom it ci luy fekk fitna ak luy saafara fitna moom it nag léeg-léeg seen warugar woo nag ñoo xaw caa desee lool loolu nag dañu am solo lool ci wàll gi média ah. daa am doole lool ci nit ñi rawat na Sénégal kan? Sénégal kan daanaka nit ñi daanaka fu leen média ah, jëme ñu jëm daanaka média ah, daanaka fuñ bëgg nit ñi jëm fuñ jëm kon buñ bëggoon jàmm daanaka doon maanaam buñ bëggoon safaan tam day day am ñu ngi fàttaliku Rwanda li fi amoon ci ginnaaw léegi man fan la loolu am na benn rajo boo xam ne daanaka moo taal réew ma ba ñu daan defal ma juróom ñetti fukki junni nit faatu ma mu xam nu mu toll rajo daanaka moo def am loolu ñu wax la rajo de rajo rek moo tax man rajo télévision ak média ci boppam rek daa war a dañoo war am responsabilité bu mag ci luy teye fitnaam li ma wax nag ne bu dee Sénégal bu ñu ko seetloo bari na ci lu lu des ci wàllu boobu fi ma jaay ñu ci bari safaan bi daanaka moo leen gënal ñoom wax ju jur fitna dafa mel ne moo leen gënal wax ju jur jàmm dama joxe misaal mu jege rek xam nga Sénégal ci ay correcteur yu mel noonu at mooy fi ne média bu bu jubee ni koy waxee rëyaay gi muy rëy ak ak mbir ma nam tuutee maanaam Sénégal ci misaal ak ju ma ji weesu ñi ci julli ak ñi julli ci gaaw Sénégal xam nga kenn xalaatu leen kenn xalaatu leen ñi julli ci àjjuma ji moo tuñ un pour cent foog ci Sénégal ñi julli ci gaaw bi mat quatre-vingt-dix-neuf pour cent loolu bu amee ku bëgg lu rafet du wax mukk ne Sénégal xàjjalikooti nañ te loolu ci waxaat mu ne Sénégal xàjjalikooti nañ julliti Sénégal xàjjalikooti nañ baab xàjjale boobu moo leen neex ndax bu jàmm aw aay la julliti Sénégal xàjjalikooti nañ war nañ am na ñaari ñaari ñaari koy te te bis ñoo ñu wax ko bu ñuy um ren yàlla yooyu na leen ba amul waaye xam naa moom moo leen gën a loon am ñu na ñaari comité moo daf mel ne moo leen gënal di gi moom nañ ba ne xàjjale ko loolu lu mu doon xàjjale ko loolu tey ku ko bëgg a wax bëgg a wax liñ doon rek da naan tey ci ajju ma am na ñu néew a néew a néew a ci Sénégal ñu war ñu ëpp ëpp ëpp ëpp ëpp loolu mooy dëgg dëgg boo xam ne yow amul lenn loo xiirtal nit ñi wala lenn loo def ci xel nit ñi waaye bu dee loo xam ne kenn mënu dee méngale moom waxi loolu ñu wax ñoom dañuy déglu léeg-léeg ci dëkk yenn émission dañu leen ci dëkk wala am na dëkk boo xam ne am na lu xam nga Sénégal moom dañoo dañoo baax daal surtout seen diggante ñu leen jiite atte ñu leen di atte muy nguur ñoom àq ñun am yëpp dañaan dañuy ñaan rek ñun daal ñu ngi ñaan loolu ñu ñun daal ko ñu dimbu leen mu baax seen àq la waaye si waaye fi mu ne ah daal ko ñu nangam mu gën ñoom wax nañ wax nañ wax nañ lañ bëgg waxe nañ ko waxee mu rafet nekkuñ naan nangam dañuy kaas mën te ñàkk nangam nangam waxuñ ci yooyu yëpp waaye dañuy bëgg nag ñoom ñu àgg ci loolu dañ ngeen def nu ngeen def ma dañuy bëgg dañuy bëgg rek ne danañ marche danañ nangam yooyu dañuy bëgg ñoom waaye bëgguñ ko ñoom naan ñu ngi ñaan ñun daal lii daal suñu yitte la sonn nañ pour suñu daal ñu jël ñoom nan la ñuy waxee waaye gars yi duñ bëgg ñëw foofu dañ naan ne waaw waaye yéen ngeen bëgg ko di def du ngeen def yëpp dañu bëgg rek ñu àgg ci ne danañ mars danañ nangam loo xam ne ci ay lay lay gën a jege moo leen di gën a nekk loolu nag du responsabilité média daanaka ñoo ëpp ñoo ëpp jeexit ñi ñuy wax ñëpp ci lu mën a indi jàmm ak lu mën a mag a mag a mag a mag la kon wàllu médaille noonu la wàllu nun ñi nga xam ne nag duñ lenn ci yooyu ma waxoon mooy xam nañ ci wàll ñi nga xam ne duñ njiit yi ci wàllu diine duñ njiit yi ci wàllu politique duñ média waaye nooy nooy waa réew mi noonu tam am nañ ci wàll ci tax nag nun nu war cee gën a góorgóorlu nun bu fitna amee ñoo cee gën a loru bu fitna amee noonu ñii nga xam ne duñ njiit yi ñoo ca gën a lor njiit yi mën naa ñoom sori nañ am na leen di aar duñ ca waaye ñun ñii nga xam ne noo nekk ci suuf ñoo ci gën a lor kon nag war gën a moytu loo xam ne yaa cee gën a lor kon yow yaa war a gën moytu mu am lor gi moo xam ci jëmm yi la daanaka fu dara amee rek li ma la Rwanda juróom-ñetti téeméeri junni defaat njiit yi bokkuñ ci njiit yi bokkuñ ñi doon politique ñi bu booba bokkuñ ci xëy na bañ jàllee bañ tàpp tàmbali di leen wër di leen topp ba benn benn waaye ci tàng-tàng moom ñu defaatu mooy ñi nga xam ne ñooy nit ñi rek ba tey ci ñoom lay gën a dal yeneen lor ci misaal bu ñu yàqee ay oto yoo xam ne ñoo yóbbu nit ñi transport en commun ay biis buñ ko yàqee bu biis yàqoo ba demal dikk gën a jafe ñii ci kaw ñoom buñ buñ bu gaaw yéegee noonu moom du leen yàqal waaye yow mi ko def yow lañ ndax yaa ko soxla yow yoway soxla biis daway la yi nga xam ne yëpp rek nit ñi dañ koy faral di yàq ña koy yàq ñoo ñu kaw ñooñu ñoom am nañ feneen nga xam ne li nga yàq yow lay gën a lor yaa war a gën a moytu yàq te ñi nga xam ne bu fitna amee bu ay amee yaa ci gën a loroo yaa war a gën a moytu fitna. léeg-léeg sax nit ñi dañuy tooñ ñi jiite ne looloo tax ñoom daanaka mooy tuñ ko lool lool lool mooy tuñ ko lool lool ndax daanaka dañ jàpp ne bu amee itam ñoom duñ ca loroon lor ñoom dara ci ñoom daañu ca lor waaye nag dëgg-dëgg ñi ci des ñoo ci gën a lor waaye du fekk ñu ko ci lor waaye nag ñii kii gën a lor nag moo war a a moytu ki nga xam ne bu mbir amee moo ci gën a loroo moo war mbir mooma am. kon daal foog naa ne loolu lañ bëggoon na tënk li ji tënk rek kon mooy fitna mooy aw ay aw ay nag am na yu koy sabab yi koy sabab la ca ëpp solo mooy xat ñàkk xajoo mooy yi gën a mën a sabab fitna jeexit yi itam jeexit jëkk rek mooy day xàññee sécurité da koy xàññee sécurité mooy xel mu dal rek day nit ñi seen xel yi dal ci seeni jëmm ak ci seeni alal warugaru jullit itam nag bu fitna amagut ak bu amee bu amagut bu ko defee mën na koo fànq bu amee bu ko defee mën na ko saafara la cay warugaram mooy mu yaatu dënn mu di di jël ci mbiram yëpp itam ci jàmm muy nangu di bàyyi di dellu ginnaaw đi jéggile di defaree itam bu fekkee ak réeroo am na ci diggante ay kuréel loolu nag di war a garu ñëpp waaye ñi ci jiitu nag mooy njiit yi ñu jiite ci wàllu diine ak ñu jiite ci wàllu politique waaye rawatina nag média média yi mooy ñi nga xam ne ñooy tasaare ñooy jumtukaay yi tasaare ñooy tasaare ñoom xam-xam yi di tasaare xibaar yi ñu ama am wàll lañ ci luy mën a fanqaaw ay waaye buñ taxaw tam nag ñu mën taal aw ay lañ jox naa ko misaal ci Rwanda benn rajo daanaka moo taal réew mi ndax fu mu xëyee rek day wax luy tax awaay am lu tax fitnaam ba mujj moo am kon noo ngi ñaan yàlla musal nu ci fitna musal nu ci waay te dimbalee nag rek luy tax jàmm am luy tee aw ay am luy tee fitna am نعم جيد مهنيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد شيخنا أكملت وأحسنت وأبدعت يلا الذي لفلتقر طبيعي daanaka waxtaan wi moom amul commentaire ndax mbir moom dina mel noo xam ne boo ko bëggee commentaire bi da koy bëgg a ñaan gi nga mujjee ñaan nag fa laay sasax sama ñaane mooy yal na yàlla musal ci waral fitna yi waral fitna rek am na fi xanaa dañuy ñaan ma dellu ginnaaw ndax par parloo bi nga tàmbalee wax moo du dëmbee dafa am ganaayu ma gisal ngi jinn mais réew mi léegi dañuy def mooy anta ma'i anta qiddis wa in kunta zidni fa anta iblis <laughs> soo amee man daal nit ku baax nga ku iblis la tase wala iblis yi ngay seetaan nag rajo yëpp kilifa yi ci bari sax noonu soo àndeeg ñoom mën nga def lu jubat lu ne dugal na ci seen biir neexal waaye suñu xamee ne bu ñu waxee nga teg ci baax wala bu ñu wootee doo ñëw loo def dana ko yàq loolu nag day jël fit la ci loolu ñu ngi ci réew mi kon yal na ko fi yàlla jëlee. justice bi yoon daa war bu coow amee bu rendre verdict ñëpp daal waaye léegi nag yoon day rendre verdict coow am te contraire ko war na am daa war bu coow amee nit ñi di xëccoo di xuloo. bu lewee ci yoon bu yoonee lii war a am ñëpp dem toog ndax yoon wax waaye léegi nit ñi bu ñu xuloo ak a werante ba demee ba yoon joxe la muy joxe foofu la si biir na fii tàmbale kon affaire yi rek moo am yal na musal ci yooyu yëpp. bari waa nga yoo wax fi yoo xam ne mën nañu ca jaar waaye lépp leer na question yi ci la ñuy xanaa li nga wax rek ne bokk na ci lii fitna li ñu mooy ñàkk jàmm. jàmm yal na ko yàlla defal koo gis muy ne këram di ko doxal wala muy liggéey baa muy sangoo ko sañte daa am jàmm comme jàmm mën a def dara fii ñu toog nii waxtaan wi damuy neex neex dal gi damuy bari bari du fi bari doon tuy léegi yëpp yoor ñi yooru wuti doon xam la ñuy wax ndax ñi yooru ñu leen di bari kon yal na nu yàlla may jàmm jàmm nag mooy ji ñëpp moo jëf yëpp. ñi ñu jiitale nga xam ne responsabilité bi ci ñoom la ëppee yàlla na ko def ci kanam xel ñu xamal ko seen bopp. ndax suñu muskila la mooy ñaari ñi ñu jiite dafa mel ni li leen wax moom xamuñu ñoom daal defe na ne seen affaire na baax seen i bien nañ ko garanté seen i privilège di ñëw waaye ñun ni ko waxee sax nga xam ko jafe-jafe am ci ñun la it yàlla doon na bàyyi xel kon nag xaj na. damay dégg ñu ne nit ñu ne na la seen jiit mel kon yal na yàlla boole sopp ñun ñoo suñuy jiit barke bu mag waaw liñ ci mën a commenté bari na waaye waxtu bi dafa xaw a te ku mel ni mu sax ko jox kàddu bi te mi ngi teew te man xam naa ne jotoon bariwul ñu bëgg bala moo tàggoo rek jox ko kàddu bi waaye dafa am ay questions yu fi ñëw bi ci mooy dafa wax ne aaya bi innama wa awlaadukum fitna kon suñu seexoon a ñu ngi déglu mm-hmm. mu ne siyaar Sëriñ Saliou Mbacke dafa teew ci jataay bi ngir wëllëre ak mbokk di ku baax di ko am kóllëre ku bëgg diine ku baax waaye di nuyu si léegi si la bu si la ba juróom xam li ko wër ba ñëwee fekk dafa am yéene nuyu la nga daan ci ay sëñ Saliou Mbacke léegi ñu bëgg ko dox kàddu gi nag loolu rek lu mu ñëw ñëw ñu ngi koy jéggalu rek. sëñ Saliou yàlla nit ku baax la nit ku am ak yëg waaw kon li ma wax sànq aaya bi dafa wax ne innama mhm. seen alal ak seen doom fitna la mhm. Mhm. léegi mu mm-hmm. loolu de li ñu waxoon ci fitna li ñu waxoon ci fitna njëlbeen bi dafa am maanaam yu bari ci arab bi ko wolof jëlee itam bari jox na ko maanaam bari mel na maanaam lañ doon mooy fitna ji aw ay waaye fitna fii nattu rek lay nattu du nattu beneen bi wolof di wax sax du natt buy firi lu diis waaye natt biy firi imtixaan mooy seet seet mooy dama leen boole ak seeni doom ak seeni alal ngir seet ñu mel ni koy def examen rek examen la daal ay épreuve yu daanaka examen la seet mooy la am lu ma leen ci digal am lu ma leen ci tere moo boole leen ñoom nag di seet ba xam ndax li mu leen ci digal da ngeen ko def li mu leen ci def da ko bàyyi wala déet kon fitna foofu maanaam moom la yor maanaam nattu te du bi wala di firee lu diis waaye nattu bii firi rek seet seet am na feneen fu mu waxee moom ne gis nga fii moom waxut waxu ne am na ci waaye ñëpp la wax seen alal yëpp seen doom yépp seeni alal ak seeni doom ab nattu la ci yéen waaye gis nga fa muy xàjjale moom foofu dane am na ci am na ci seeni soxna ak seeni doom am na ci ñu doon seeni noon inna min azwajikum wa awlaadikum aduwwan lakum foofu moom du ñëpp waaye am na ci mooy am na ci ñoo xam ne seeni soxna ci lu leen di lor lu leen di yàqal lañ leen di dugal loolu jëfi noonu la seeni doom lu leen di lor lu leen di yàqal lañ leen di dugal loolu jëfi noonu la waaye fii nga xam ne ñëpp la wax moom euh, am ab nattu ab nattu lañ mooy lum lum leen booleel la di seet nag nu ngeen cee doxe di seet nu ngeen cee doxe kon kon fitna kon nattu lay firi fii rek waaye firiwut wax déedéet. macha allah leer na beneen question bi am na yu ko gis safaaye boobu moom dama koy dama dama koy yi ngay gis ak xale yi gox bi léegi yàlla leen euh, dugal ci bëgg xasida bëgg sëriñ bi mhm. di ci jàng. ñu jàngal nit ñi mën a jàng di yëkkati ñi di dóor di dóor waaye ñu àndandoo ko nag di ko def ay daayira comme ni nga ko gisee nii. Mhm. mu nekk loo xam ne rafet na loolu ci gis bi mhm. ci saa mhm. yi ci bàttin bi lan moo des léegi nag ñoom ñu bëgg a jëriñu euh, ca am ci yow yaakaar ñuy laaj ku ne yi nga xam ne dañoo bëgg jëriñu ci xasida yi te jox jëm fi euh, yan doxale la dox pour mëntee jëriñu ci saa yi waaye jëriñu ci bàtt comme ni ko sëñ bi bëgg ay nasiha lay de lu am solo la mooy def sa bëgg-bëgg ci xasiida yi lu am solo la léegi bañ nekkee ci kër gi rek ñu fi ñëwoon di andi xéewal suñ Fall da leen wax ne mënoon ngeen a jëme seen yitte ci leneen boobaa itam ñi bëgg lu baax da di metti waaye duñ ci mën kon sant nañu yàlla ngeen ko jëmee ci lii kon ñoo xam ne seen yitte ñoom dañ ko jëme ci xasiida yi loola lu baax la lu ñuy sant yàlla la waaye itam ni ñu ko waxee nit lu muy def lu nekk it euh, xam nay tax mu mën caa jariñu da cay baax waaye du wéy rek ci xalaatu boppam xelum boppam ak bëgg-bëggu boppam wala xelum keneen koo xam ne lépp ci xel la ko tege mbirum diine moom lépp lu tege ci xel bu la jëmi diine yi ci boppam day jóge ci alquran wala sunna wala borom xam-xam yi jëfandikoo yi ñuy jëfandikoo moom euh, dëppoo ak la ci alquran ak sunna te yoonu murid itam lu ci nit di def dëppoo ak doxalinu sëñ bi ndax sëñ bi tax ñu naan ak murid xasida moo leen moom moom moo xeetal nit ñi ci xasida yi moo leen ko bëgg moo leen ko fonk loo kon ku ci ne lan lay tax mu mën caa am lan cay séentu mooy da koy def ko leer ni ko sëñ bi bëggee ni ko sëñ bi bëggee nag moom la ca jiitu mooy sellal yéene sellal yéene buñ ne sellal yéene nag ci mbirum diine mooy yàlla tax nga di ko def waaye defoo ko ngir am ci àddina defoo ngir am ci alali àddina defoo ci ngir am ci fu nit ñi di teg yëkkati ko leen ñuy yëkkati wala siiw wala xeet yëpp nga xam ne rek ci àddina lay dellu loola bu mu tax nga nekk moo xam kii durus rek la moo xam kii yëkkati la kon sellal yéene ji moom mooy di ko def ngir yàlla rek ku ko def ngir yàlla nag yàlla mën na ko caa terale waaye loolu tax koo des mu ne suñ mag rek li ko yàlla jox teraanga yi àddina kenn xamul nu mu toll waaye amul lenn lu ko taxaw taxaw taxaw mu ko yëg amul lenn lu gën a tuuti teranga yaatina lu ko xam ñu jëf kon keneen koy def ngir yàlla it yàlla mën na koo defal teranga waaye nag jox koon di def moom sell googu kon mooy li xam ne moom ñëpp ko war leneen yeneen yi moom damay wax yoo xam ne xëy na ngi am fi mu nii te xamuñ ko bu njëkk yooyu nag jar nañ mooy mooy jar nañ mooy mooy nit ñi di tànnal seen bopp ay xasiida di ci féetale seen bopp ñu naan maraabit ñu naan ndóor daareen ñu naan nàngam am na ñu àgg sax mel na ko dañ leen di xeexale ku nekk di wane daanaka nàngam a gën xasida sàngam moo gën wala moo ëpp solo wala moo gën nàngam loolu bokku ci moom loolu bokku ci sëñ bi andiwu ko fi ñoom ñoroon xamuñ ko woon nun ñi boobu yàggul xamuñ ko woon bu yàggul nañ tàmbali dégg ñu naan diw nangam diw nangam diw nangam wala jël genn xasida di ko jàng nangami yoon loolu tam bokkul jël genn xasida naa man bis bu naa jàng nangami ngóor daay wala nangami jaari bos wala yu mel noonu déedéet loolu bokkutoon xamuñ ko woon yoru yoru sëñ bi demee xasida yi lu ji nit fas mën na ko cee am am na ci mag ñi ñoo xam ne waxuma na bi jàng nangami xasida yu bari sax waaye daanaka genn xasida rek lañ lañ jàng seen dund yëpp genn rek te doy na leen jërut kon bi euh, sos daal yoo xam ne xel yu bees yi ñoo ko fi bu rek gu bees yi nga xam ne seen xel bopp la ñuy doxee ñoo ko fi andi لي قصيدة ليس قصيدتي ما قصيدة ما خد سوينا قصائد الكرام قصيدة أن ينال لغا أمين يوين موينيا بو سيري كحسان كهب ya yooyu yëpp a baax waaye nag sax foofu di leen dal na amal amal di yëpp jamono xëy na maanaam lépp doy sax lu nekk parce que day ci gën a gaaw ma ne sant kon yi nga xam ne yi nga xam ne yi nga xam ne bokku ci woon bokku ci woon mooy sëñ bi andiwu ko fi ñi yaraloon boppam daawuñu ko def bu yàggu mbàyyi la loolu ci xew ñu mel ne yooyu may loolu itam ku ci kii na moytu yooyu bu dee jàng la ñun durus la ñaan durus mën naa tànnal boppam xasida ñu bëgg a jàng waaye jërul mu ci jàng ñaar ak benn yoon doy na ci xasida ci bis noor daaree bu fekkee kenn mën na ko jàng ci bis doy na jàngul noonu beneen doon doon waaye ku jàng ay nangami yoon jëru ko bokku ci dana ko jàng euh, sakantuma nag ji di mel na ñuy xeexale ñu xeexale xasida yi kii naan mooy nangam kii mooy nangam euh, li yées nag li yées mooy bëgg a teg xasida yi ci kaw alxuraanul karim loolu moo yées te nit ñaa ngi ñu bari ci yoon yi ngeen jaar rek ba àgg ci bëgg xasida fonk xasida ñuy loo xam ne moom la muy wax bi wax moom xamul la ci sëñ bi jublu mu fiwil ko boppam ba réeral ci ay nit ba di leen jëme ci ne xasida féete kaw alxuraan loolu amul loolu suñ tubaab lu mën di wax ci boppam day fekk yàlla jàll yonent bi jàll lu wax ci waxam day fekk alxuraan jàll hadis jàll lu muy wax ci boppam doo ko wax ci boppam ak ci ay waxam kon képp ku nar a ci nit ñi ci ne xasir dafa gën alxuraan dañu wax amut suñ tubaab ragal naa loolu na la yor moom kon yooyu jeex naa mooy bu dañuy yëkkati ñu yëkkati lañ ca war a moytu mooy dugal ca lu ca bokkut dugal ca lu ca bokkut mooy bu ñu jàng xasiid nañ jàng xasiid gi rek ni ko sëñ bi waxee woon rek nañ ko ni waxee sëñ bi mas naa woo jàngkat yi ñu daan yëkkati fekk am na ñu ci doon tàmbalee dugal yeneen mu woo leen laaj leen loolu lu ngeen ci jublu ñooy dañ koy xoromal xaw ma xoromal wala safal daal am nañ koy nuñ koy waxe mooy leen lii lii nii lim laaj lépp ñu ci ba noppi man mi ko defar lim laaj ko xorom def naa ko ci lim laaj ci leneen def naa lépp lu mu laaj rek def naa ko ci ba noppi kon ñu ci yokk dara jàngee leen ko ni ma ko bëggee rek ni ma ko dindee rek jàngee leen ko ni ma ko dindee rek kon yokk ci dara moo xam di jàng xas yi tudd aw tur loolu jàngkat yi fi jiitoon ñoo ko daan def dana lu ci bari am xoola woon jàng bu ñu yëkkatee yow waxu tudd diw sàngam man naan sax boo tudd xeetu xeetu xeetu wayaan nga doon daal man naa ndax boo nee diw sàngam taalibe yi ñoo soog a ñëw ñëw jox la dara yooyu mu solo te bokkut bokkut yooyu moo jar mooy def ñu yëkkat dañuy moytu loolu lu ci dugal lu ci bokkut lu mu tuut tuut benn ngay jàng sax la Sëñ Tuubaa jàng ko yem ci boo bëggee jàng leneen ñu xam ne leneen booy jàng woyu keneen ñu xam ne woyu kooku nga jàng booy tàggal sa bopp keneen rek ñu xam ne keneen kooku ngay tàggal sa bopp waaye waxu Sëñ Tuubaa moom bu tugal lenn loolu noonu ko waxee rek moom noonu la ko waxee nee na lépp lu mu laaj def na ko ci ba noppi kon amul lu ñu ciy yokkati luñ ci war a yokk yu mel noonu daal xëy na du mën a teewlu yëpp waaye yooyu daal bokk na ci ñi nga xam ne ku jóg jëm ci xasida war na ca bàyyi am na ci lu am solo lool nag mooy muy wér njàng mi di wér wér wér mooy nit ki itam na góorgóorlu ba li ñuy jàng di wér sëñ bi dafa dégg ku jàng wenn bay xam ne ak sàdda daal la ca sotti sàdda waaye sàdda gi mu ko soppee dafa safaan maanaam bay bi sëñ bi da ci wax ne yàlla defar na sama liggéey defar ràmma defar na sama liggéey comme sëñ bi loolu loolu moom mooy mooy li am moo ko neex mu di ko nekk am ku koy jàng moom ràmma jee mu ne rama rama mooy sànni na mooy sama liggéey yàlla sànn xam nga loolu metti na sëñ bi ko déggee dafa dafa dafa moom loolu génn kan mooy naan ma ma ko jëm ci gi moom ñu bëgg sànni ab liggéeyam te lépp mooy rek ñàkk a farlu ci wéral li ngay jàng ñàkk a farlu ci li ngay ci wéral li ngay jàng ndax njàng bu wérul rek mën naa joxe meneen maanaam loolu nag yàq dem naa mooy moo xam kuy durus la rawatina nag kuy jàng ci kaw kuy yëkkat moo ci rawat kii durusam daa war jàng lu wér waaye kii yëkkat nag moo ci rawat sëñ Masamba bu ko sëñ Masamba digal muy taxaw jàngkat yi dañ naan ñaar la ko daan sàmm lool mooy kuy jàng ku ne la muy wax na wér ñi yëkkati laa bëgg a wax ñi yëkkati ku ci ne la muy wax na wér baatam na neex ku ci manqué lenn ci yooyu rek dañ koy génne ku ci la muy jàng wérut dañ koy génne ku ci baatam neexut dañ koy génne ci nag génn nag tey durus tey durus ndax nit ñi itam nag du farata nga leen dégtal baat bu neexut ci lu mën di doon looy dégtal nit ñi moom dara tax sa baat neex bu doon lu ñuy waxtaan nii rek waxtaan nii rek moom sabaan man baal ma waaye am njàng moom moo la moo xam njàng xasida la loolu yëkkati nag nit ñi ko dégg moom daa rafet sa baat neex bu sa baat neexul nag nga bàyyi seen baat neex te yow nga kon ñu mel noonu daal xëy na war na cee bàyyi xel. jërëjëf sëñ Cheikhouna daa mel ni lii mu wax rek doy na ko ndax ñun ñi fi tey ñëpp ñu ngi ciy jëriñ. li ma ci gën a marqué rek mooy ñi nga xam ne dañuy jël benn xasida daf koy jàng ay yoon ci bis bi ñuy jàpp ci Thiès dama fa gis benn boo xam ne loolu wax ne am na ñoo xam ne dañuy jàng Nuuru Daarayni juróomi yoon wala juróom benn bis ma ne ko ñun xanaa amuñu liggéey ndax Nuuru Daarayni ko bu mën a jàng juróomi yoon ci benn bis da nga fekk Thiès day fekk na yow liggéey yow la ko liggéey doon na ma ko gën a woon waaye jamono ji fi mu toll soxla yi ni mu baree nga bëgg wuti dépasse mën a toog benn barab te jàng juróomi yoon Nuuru Daarayni ci benn bis kon loolu dana ci am solo baat ba neex bi da ci am solo lool baat bu neex teer sëñ bi dégg naa sax xamal sëñ bi suñu tubaab la xam ma kenn ci sëriñ si waaye dégg naa ba daal dégg nga déggal ngay jàng sa baat naqari da lay woo yónni dafa sori ba nga ñëw jàng ma jeex ndax du la mën a wax ñaar waaw kon loolu da ciy baax baat bu neex ko sa baat neex ko da jàpp ci yàlla see jàng de dana jàng solo xam naa question yi bari na benn laay dugalaat rek ñu daal di jeexal wax ji ndax dafa xaw a guddi di jox monsieur le maire mu sànni ay kàddoom mooy ki dafa wax ne ما موقف زعماء زعماء الدين في في الحياة السياسية؟ ما أنا قلت بدال نمدني نمدحه لما تقول لما تتحوى يكيد فكين لما يكسر لما يجسنا تحوى ولا لما تقول دون سنتحوى لما تقول دون سنتحوى لجلان سنتحوى مون نونكو جيسوس نونكو بوكو لجيسوس لما تقول دون سنتحوى نفس kon mbirum politique dafa yaatu ndax li ñu doon wax ni ci wàllu fitna ñu doon wax rek muy aw ay maa ngi wax ne jamono yi réew mi am na lu ñu ci doon ragal am na jot a xew sax am loolu ba léegi nit ñaa ay woo xam ne ci politique la juddoo kon bokk wax naa ñi am warugar ci fànq fitna wala saafara ko njiit yi ñoo te jiitu kon ñoom am nañu wàll ci am nañu wàll ci loolu. am nañ wàll ci taxaw taxawaay buy tax ba li nit ñi ragal ci fitna bañ a am ci ci lu jege li gën a jege mooy liñ toll fi mu ne nii nii muy fitna ci nit ñi ragal ci wàllu politique ci li ñu dëgmal jamono yi ñu dëgmal ci réew mi loolu bokk na ci seen warugar ñu taxaw taxawaay buy fànq fitna jooju nit ñi ragal ci li teew loolu moom lu teew bu lu teew nag. ñoom dañoo war jàngal nit ñi di leen tegtal lépp lu leen amal njariñ àddina ak àllaaxira loolu nag la ca ak ci politique itam ci la mooy war nañ leen di xamal ba ñu xam ban taxawaay lañ war a am ci politique li ñuy jëf tam aju ci politique nan lañ ko war a defe nan lañ ko war a defe mooy koo xam ne moom politique am lam def weesuwut wote jot mu dem wote kooku war nañ koo xamal moom buy wote lu mu war a bàyyi xel lan moo ko war a tënk kan la war a woteel kan la mooy du jëmm duñ duñ duñ ko sàngam waaye ku mel nàngam kon war nañ koo xamal ki nga xam ne vote lay moom rek war nañ koo xam vote jotee kan la war a woteel kan jeneen du jëmm sàngam waaye ci yor melo sàngam bu dee koo xam ne politique am weesu na voté rek waaye sax moom ci boppam day sàkku day sàkku ñu voteel ko mooy day sàkku dénk ko kooket war nañ koo xamal moom it yan melo la war a yor doora saña ñaan ñu dénk ko loolu ma war a nekk ci moom mu doora saña ñaan ñu dénk ko bu dee def li ñu te campagne électorale te mooy dénk gi bëgguñu ñu dénk ko muy war nit ñi lu war a tax ñu dénk ko war nañ koo xamal itam loola lu mu ca war a def lu mu ca sañ ak lu mu ca sañu nu ko war a def lu mu ca sañ ak lu mu dénk ba noppi war nañ koo xamal nu mu ca war a doxee kon yooyu yëpp bokk na ci seen war ba ñu koy xamal seen njaboot ndax loolu lépp bokk na ci di leen tegtal lu leen di jural njariñu àddina ak alaaxira ndax yi ñu wax yëpp lu ci nit defee neneen rek mën na ca am daane yàlla muy kon loolu alaaxira mën na ca am loolu àllaaxira te mën na cam loolu àddina itam kon war nañoo xamal ñu yëngatu ko di ci wàll googu yëpp fenn la gën di wax xam naa bu ñu naan seet taxawaay tamit léeg-léeg mooy ndax watal leen diw loolu moom du bu ñuy wax ne war nañ ko def wala ko def waaye kenn ku nit ñoom mooy xoolal boppam mooy si mbir yi tolloog dox yi ñëg yu mel noonu ndax laaj na loolu wala laaju waaye moo koy nattal boppam bu gisee na laaj na ko mu def ko sañ na ko sañ na ko sañ na ko bañ a def nit nag lu mu sañ a def sañ koo bañ a def moom mooy xoolal boppam kañ la koy def ak kañ la ko dul def waaye yee moom du ne sañ na ko sañ ko moom sañu koo bañ a def sañuuta bañ a tegtal njabootam leen di jëriñ tar nag yàlla xel bu dee ci wàllu politique ci anam yi ma wax nii ci bëgg ñu dénk ko ak ci dénkaane ku ci ne war nañ koy xamal doxe moom war a doxe ndax bu ko doxee wut mën na caa amee daane yàlla muy loolu àllaaxira te mun da leen war a fànqal lor di leen ëcceel njariñ di leen fànqal lor ci tënk daal foog naa ma naa wax loolu ci lan moo a nekk taxawaayu sëriñ ci politique. jërëjëf si Seexuna Pape Massalla yal na la yàlla yàggal yal na nga gudd fan yal na nga wér yal na say xew yokk waxtaan wi am na solo question yi itam bi leer na nañ des na yeneen sax waaye dafa guddi ñu koy bàyyi noonu xanaa wax dëgg yàlla xanaa fi nga daane rek ci kilifa yi ndax bokk na ci sa waxtaan li ci solo mooy nit ki sa question bi lay laaj ni mu ko war a laaj sax su ko laaj woon da nga koy defar question ba mu jekk door ko tontu loolu nag ñu ngi sant bu baax euh, di leen ci gërëm di ñaan kilifa yi taxawaay bi xam ne moom la war a taxawee yàlla na ko taxawee ndax koo xam ne njaboot yëpp sa njaboot bu gaañu di am sa njabootay gaañu bu defaru di am lu gaañee war nga caa wax même boo ci mënul di wax ba ñu dégg lii ëllëg yëpp nag mooy ñaari dañuy gis ñoo xam ne nit ñi dañuy toog jafe-jafe gi waaj a am ñu naa dina am dina am ni toog ba am ñu door a wax ba pare dafa am ngeen dëkk moom jaxasoo ndax kilifa yi naa fitna ji dina wàññeeku xam ne boo ko fonkee mën naa jur ko fonk mën naa jur yoo xam ne lii moomuñu ko nit dinañ ci liggéeyal dinañ ci xidma bu ko defee dañ ca war a jëriñoo ñu koy jëriñoo lañ jabar war a jëriñoo ñu koy jëriñoo ñu am di jëriñu ba yemal xeer yal na yàlla defal lool ndax muskile ni am ci réew mi am na ñoo xam ne bu leen dénkee doole wala ñu dénk leen alal dañuy def ne alal ji ñoom ñoo ko moom doole ji au lieu que ñu deerte sàmm mais danañ ci buur léegi nag ci ji looloo koy waral ndax koy dóor muy fay bu yàggee jafe-jafe am Sénégal nag lay gis koo xam ne dañuy ñëw li di wax dañuy fekk ki ñuy dóor ñu naan ko noppil baal jooy te kii dóor du ko wax baal ko ah dana nga naan noppi dara waaye mii doom yi jooy baal te kii dóor yooyu yam boo bu dee soo gis la ñaar la waxoon sax mën na dafa réew wala xamu waxee fël ko fël baa jëf te mënul dara ndax nit boo ko defal ko naqari boo ko te mënul koo la am ci lu ñaaw rek la yow kon yàlla ko du la yàlla yàggal li mu bëgg a wax lépp day kawe mais ñëpp xam nañ wax naa ko fi benn ci nagum ba ba ma koy jàngale waxas fu ma yoo xam ne mu jaaw isum Ibn ma ko loo xam ne man koo ko ñu wax ko ñu xam ko sax bu la neexee bañ ko wax kenn ku ne xam ne na ku baax nga ku yiw nga ku yan nga ko defee daal jox mu sànni mee kàddu gi donc mu daal di sànni ay kàddoom ba la ñuy julli kon xanaa sant leen def rek sant sant rek sant leen rek ci ngeen jox bis bii lu euh, ma wax li suñu ko doon xëy na waxal bopp waxaa waxlaatal bopp ci jotaay kon naa ko jox rek mu àggale kàddu bi ginnaaw moo leen sante daal perte bi sama kenn sax laay euh, ñaan rek yàlla gën leen a taxaw ba bëgg-bëgg bii ngeen am ilyen àgg ci foofu seen yoon ñoo a jégalu ñëpp asalaamaaleykum wa